bi sama nar bi dafa ñew ci mom ne ko ñett laaj la am moy bi may mujjé ñett laaj ba ñeent mu ne ko bismillah mu ne ko sa digënté ak yalla sa digënté ak yonente bi sa digënté ak nit ñi ak sa digënté ak mouride mu ne ko bismillah mu ne ko wa sa digënté ak yalla mom lu mu nonu noonu yaag yàlla lu ngeen seq mu ne ko jamm señ bi ne ko jamm mu ne ko mu leen benn jafé jafé mu ne ko amuñ benn jafé jafé mu ne ko lu ko waral mu ne ko lu ma digël def naa ko tu musuma laal lu mu tere te lu mu defet neex na ma nar bi daal di ko bopp bi ne ko waaw kooku moom mun leen am benn jafe-jafe mu ne ko sa yonent bi nak mu ko amuñ jafe-jafe moom it jàmm mu ne ko lu tax ko na yàlla bëgg ku ni bëggee yonent bi bëggee naa ko na yàlla bëgg ku ni toppee yonent bi toppee naa ko noonu ko ah kooku amu leen jafe-jafe mu ne ko sa diggante ak nit ñi mu ko jàmm mu ne ko lu waral jàmm mu ko kuma ci togn bala nga yegni ne ma togn jéggal la lu rëy ngi nga suñu tubaab foofu nee ci togn bala nga yegni ak togn la jéggal na la te lu ñu yor bàyyi naa koog ñoom te lu ma yor bokk na ko ak ñom motax sequma ma ñom du jam mu ne ko lolu ah, loolu da jàmm rek mu ne ko benen bi ci dess moy sa mouride mu ne ko sa mouride yi ni ma gisee ñu niñ la bëgge boy xol day melne sahaba yi sax bëgge wu ñoo ñu yonante bi benen bi ci dess yow li may gën jaaxal nak moy duñu bëggante ci seen biir kon bobu gis na ak bëggante kon ak bëggante mu ne tax ñàkk ci ñu mu ne ko bëggante gi bëggante ci seen biir moma jaaxal mu ne ko wa ñom de li tax mu ñuma ñak bëgg moy mu ko mu ne ko dama yurul lor ju jëm ci ñom dan ne ko lolu ñu naan fayu ci tuba lolu ñu naan fayu bu ma sama borom digaloon ma dem ci tuba yi ya fayu ji dana ko wax xor gi nek ci nit ba fayu mu def ko ci man ndax awmako man ahmadu man sa nafin bila dara rek ku mu munta jariñ bala waaye ma lor ken motax man yuruma yuruma yuruma lar ju jëm ci ñom ñu ma ñak bëgg mu ne ko bu sama murid nak bëggante giñ bëggante ci seen biir mu ne ko mu ne ko lolu la mu ne ko mu ne ko bu la jaxal mu ne ko lutax mu ne ko dama leen boole lu ñu see doogut dama leen boole lu ñu see naar bi ne ko ah kon de li nga leen boole te séddooguñ ko xanaa war naa rëy sëñ bi joxoñ jëmm ji ne ko sama jëmm ji laa leen boole te séddooguñ ko li feeg séddoowuñ ko rek dañuy nekk benn kon yaa rabbi yee ci xalil muridina maha fii gis nekkan asini wasam lañ maha dañ jàpp ci suñ tubaa suñ tubaa yëmut ak kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëgéen jëf